suñuy cant ak ngërëm ñeel na leen la ko waral mooy safoo bi ngeen di safo bés bu yàlla sàkk programme prestige tv ba tax na nag ngeen ñuy bàyyi xel ngir xibaar yi teel biir réew mi di Sénégal ak bitim réew te bés bu yàlla sàkk nag seen télévision régionale di ci béy wàllu am solo ngir xamal leen ana lan moo ci gën a fës ba tax na nag tey jii ci altine gi yemoo ko fukki fan ak ñeent ci weeru décembre euh, ci astum 2020 euh, la gën a fës ci bopp xibaar yi nag nekk daal euh, màggal bu ñu màggal ki nga xam ne nag mooy Cheikh Sall ginnaaw bu mu amee benn at ca université bu Thiès bés weesu nag kon ñu doon magal uh, at bobé xam mom la fa am way dak toftal ca dal uh, jéego yu mat sëkk ngir daan feebar bi uh, di virus ki nga xam nak moy ministre bu wess yes bi di ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel di docteur Pape Amadou Ndiaye bés yi weesu nag wala samedi gi rek amalon nak tukki tukkib dal di dem seeti ki nga xam moy monseigneur Alexandre Gay mi xam monseigneur André Gay mi moi moy évêque bu Thiès la nekkoon tankam ya dal moy mu ñaanal ko la fa lañ ko am résultat. hibari tel, teel bitim rew ak mon tagat yaram mo fa seen une yi ci seen télévision régionale du prestige Moki yi ñuy rafetlu seen kóolute su ne ñu ñëw ci mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf yéen ñi xam ne dañuy seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am nag ñi tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information 3w prestigethies.com ak page YouTube bu prestige daal di dooree xabaar yi nag ci feebar bi di coronavirus jàpp nañ ne de mbas mi daal mu ngay wéy di gën a am tànk ci miim réew di Sénégal ba tax na nag mënees nañ jàpp ne dugg ñaarelu ñaareelu bu vague wàllante feebar boobee di coronavirus ah, ba tax na nag bulletin ah, sanitaire bu tey de xamle na ne lu tolloog ah, juróom-ñaar juróom-ñaar fukki nit ak benn daal dinañu am feebar boobee di coronavirus leeral ñu ànd ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye mi xam ne mooy directeur de la prévention bu ministère de la santé et de l'action sociale. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajal yi ci junni ak téeméer ak ñaar fukk ak ñaari test yi ñu def juróom-ñaar fukk ak benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak ñaar ñooy tuddee ka contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore jàngoro ji amuñ ci benn cas bu bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fanweer ak juróom-ñeent xam ne ay cas communautaire lañ mooy ñu jot mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee fatik Richard Toll am ci Almadi Kër Liberté 6 Mbour Wokam Sacré-Cœur 3 ak Ben Moham moo Cité Fadia Cité Kër Gorgui Résidence Grand Médine Kaolack Liberté 1 Mbake. Mbao, Mermoz, Nord Foire, Parcel Foire, Pikin ak Tamba juróom benn fuk ak juróomi malade si ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñaar fukk ak benn ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bu su démb dibéer fukki fan ak ñett ci weeru décembre mi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan Euh, des nag ba léegi ca liy teel feebar boobee di coronavirus euh, waaye nag ñi xam ne ñoo nekk ca université euh, Iba Der Thiam bu Thiès bés yi weesu de la ñu doon màggal ki nga xam ne nag mooy directeur CROUST di centre régional des œuvres universitaires yu Thiès moom nag di Cheikh Sall ginaaw mu amee benn at nag ca biir université boobee ñu ngi ko doon màggal la ko waral nag jaloore ya fa def ngir jëmal institution boobe euh, ca kanam waaye nag ca anniversaire boobee sax dañ fa toftal la xam ne dafa am solo lool mooy euh, fexe daal ba bokk ñiy dàkk feebar bi di coronavirus ci biir réew mi di Sénégal loolu de moo yitte université bu Thiès ba tax na nag jël nañu métuwaay yi matuwaay yi ngir daan coronavirus euh, Cheikh sàll mooy directeur CROUS bu Thiès ñu teewlu. li xamante moo ñu yitteel tey jii xeex bi nga xam ne war nañ koo xeex contre musiba moomu ñuy wax coronavirus moo tax ñun musu ñoo yokki musu ñoo wér suñuy ngànnaay ba commencé ba nëgë ni lu man def nañ ko ba fi ne dogal na bët fii ñuy wax euh, ci kàttanu yàlla euh, aar nañu ci yàlla aar na personnel bi yar na aar na étudiants yi ci musiba moomu moo euh, bis ci kanam di ngeen gis ni li ñu tax a indi dëgg dëgg dëgg man ma sawar ci bis bi mooy masque yi ñuy joxe alcogel yi ñuy joxe ak digal yi nga xamante bi dinañ ko digal étudiants yi euh, pour que ñu mën a mucc ci feebar boobu. loolu mooy yi lay bis bi tey mais buñ ko gisee rek bisub euh, feetu comme yii dañ ko defar ba mu pare ah gaa ñi nii étudiants yi ni ñoom ñoo ko wax nañ ci boolewaale wane ko wane ni par exemple euh, am na leneen lu fi nekk. waaye li nga xamante ni moo jiitu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci bis bii mooy nu ñuy def ba nga xamante ni feebar bi biñ jekku ba nëgë ni euh, ñu ba mu bañ ñoo jekku loolu daal moo ñu tax a jóg euh, fii nag Thiès bi ñu ñëwee xam nañ ni étudiant ku wérul doo doo jàng ku xiif doo jàng ku fi ngay tëdd baaxul doo jàng euh, fi nga nekk environnement bi bu fekkente ni fi ngay nekk maanaam tu n'es pas amoureux de ton cadre de vie doo jàng loolu pour que étudiants xam le président son excellence Macky investit beaucoup d'argent au niveau de l'enseignement supérieur de l'enseignement tout court pour loolu yi remplacer parce que ñun étudiants la ñu université génn remplacer ñi nga xam nation bi di def ci atteindre wolof dani boo amee ñaari soxla da ngaa téye yaram ba pare. mbokk yi àdduna ak ci xibaar yi teel askan bi tubaab di ko wax société samedi gi weesu nag ministre de l'artisanat euh, bu yees bi di docteur Pape Amadou Ndiaye nekk doomu Thiès amaloon nak tuppik tukkib nemeeku euh, dem nag seeti monseigneur André André Guèye mi xam ne mooy évêque bu cees la warloon tànk ba yi tànk ya daal mooy delloo jukkal ak wone rek euh, euh, wone rek soppi mu soppi mu sa ñaar googee waaye nag sàkku ñaan euh, ca la xam ne moom lañ ko dénk mu daal di ko jëmale kanam docteur Pape Amadou Ndiaye nee na daal loolee mooy yitteem ginnaaw nag bu ko monseigneur bi dalalee nag yéen a bi wax ana moo nekkoon tànkam yi ñu deglu nag ministre Pape Amadou Ndiaye. ngi ñëw tey. di sant sunu borom ba mu mayee ba ñu taxawaat fekkaat si sunu jëwriñ bi nga xamante ne mooy évêque André Guèye ñu ñëwaat seet si ko tey di sant yàlla bu baax ba ñu mayaat ñu kàttan ba ñu fekkee ko di wax ne ñun fii du ñu fi gan tax saa yu ñu yàlla defee ba nga ñu am loo xamante ne dañ ko jox ndomba tànk dañu ñëw ba ci moom defal ñu ñaan ba yàlla may ñu kàttan ak xel ba ñu mën koo def ci jàmm sant yàlla ne bàyyi ñu fi ñëwee ñu delluwaatee dañuy am ab yokkute kon tey su ñëwaatee tamit ba loolu amaat xel nangu na tamit ñu ñëwaat ba ci moom ñaan sàkkuwaat ci moom ñaan di sàkku ci moom ñaan mu ñaanal ñu suñu président de la république le président son excellence Macky Sall bi nga xamante ne moo ñu ñëw tabb ñu ci ministère bu nga xamante ne ministère bu am solo la ndaxte su ñu nee way xarala bi artisanat daal di ne ñi nga xamante ne dañuy liggéey te binduwuñu muy secteur informel soo ko génnee ci réew bi li ci des bareetul kon tey ñoo ñooñu nga xam ne secteur boobu su doo ko jox rek. kon def na la jox na la rëy ñu bëgg nga ñaanal ñu président de la république ñu wér kàttan li nga xam ne moom lay mbébét ci sénégal yépp yàlla defal ko ko mu mën ko def ci jàmm ak tey bakkan di tam ñëw di sàkku ñaan ngir li nga xamante ne président moo ñu teg sunu loxo muy département bi ñuy wax nii muy département bu am solo ñu def ba li mu yéene ci ñun yëpp ñu mën ko am ñu jot ci maanaam ñu dem ba nga xamante ne lu muy bëggoon ci secteur bi ñu dem ba weesu ko ki nga xam ne nag euh, mooy euh, monseigneur André Guèye euh, di évêque bu Thiès moom ci wàllu boppam nag rafetlu na lool ngan ngoogee nee na de docteur Pape Amadou njaay laataa muy nekk ministre mu nga doon jàppale communauté chrétienne bu nekk ci Sénégal rawatina waa Thiès waaye nag bañ ko falee monseigneur Pape Amadou Ndiaye dox na tànkam ba ñëw seeti ko ndokkeel ko. nee na nag Pape euh, su jëlee tànkam ñëwaat foofee dafa ñëw daal ca këram loolee nag lamb seigneur André Guèye daal di àddu nee na nag mu ngay ñaanal euh, ki nga xam ne mooy Pape Amadou Ndiaye yéen bi daal daal di diis dal di woyof tooy loolee daal la koy ñaanal ki nga xam ne nag moom mooy monseigneur André Guèye di évêque bu Thiès àddu nag ca visite boobee ñu teew. maa ngi gërëm monsieur le ministre ci visite.

chaque fois de ñëw fii xamal ma sàkku ñaan te loolu itam maa ngi lay maa ko ci gërëm bu baax a baax ministère bi mu bi ñu ko dénk lu am maanaa la ndégg ku dégg informel yaa ngi xalaat ci ñëpp ñi nga xam ne dañuy daan seen doole te du ñu fayeeku te ñu ngi def lépp ndax mën a yore seen njaboot mm-hmm. moo tax ministère bi am solo ndégg secteur yëpp la laal te euh, tour ministère bi rek wane na gëdd ak dignité du chef de l'État euh, bëggal secteur bi ndax mu gën a fës ndege secteur bu am maanaa la ci sunu économie dañ leen war a jàppale secteur dañoo war a jàppale secteur informel organiser ko yombal leen lu bare ndege seen contribution li ñuy euh, joxe ci koom-koomu réew mi vraiment am na solo torop moo tax itam ñu war a ñaanal monsieur le ministre ndax yàlla may ko kattaan wér d'abord kattaan ndax mu mën a euh, réaliser mëtali lépp li nga xam ne monsieur chef de mu ngi koy ngi xaar ci moom te gërëm naa ko itam ci euh, lii mu taxaw ci sunu wetu communauté chrétienne Thiès Euh, des nag euh, ci jafe-jafe askan bi ba léegi liggéeykat yi xam ne ñoom ñooy liggéey ca GCO te GCO di firndeel Grande Côte Opération euh, nekk nag ca goxu Mboro di Diogo ñoom de dañoo mer bu fut ñàkk ànd ca dàkk bi ñuy dàkk ñenn ci ñoom la ko waral daal nee nañ tubaab yaa fa nekk daal euh, ñu ngay salfaañe yële fupp euh, askan baax wala rawatina ñi xam ne ñoo fay liggéey euh, jógul joxuñu leen gëddu mukk loolee nag métti leen lool ba tax na nag ñu wàccoon ca mbedd ya ngir wane seen nakar waaye gendarmerie nag daal di ànd ak ñoom escorté leen ndax mas marche boobee marche pacifique la woon ki nga xam ne nag moo yor seen kàddoo daal dina yuppi daal la xam ne moo leen métti ñu teewlu. li ñu fi dajale tey mooy dañuy bañ nooteel dañuy bañ buumu njaam bi nga xam ne si daf ko bëgg teg suñu askan ginaaw bi ñu tooñee charte jarga ji charte réew mi jël ay tëj leen ci loo xam ne lu seen coobare te état yëgu ko inspection yëgu ko kenn yëgu ko déetuwaay ñu loolu leen ci néeg yoo xam ne baaxul déetuwaay ñu xiifal leen ñaari fan ñoo ñu génn ne de kon bàyyi leen ñu ñëbbi suñu kër ñu ne déet loolu lañ fiy bañ.

bañ seen askan topp ci ginnaaw tubaab bi di yàppari yàppari ba tey ñu nar a taxaw sànq seen askan loolu lañ dul nangu ñu dàqee ba léegi euh, juróomi weer a ngi nii ci borom kër bi nga xam ba muy liggéey sax loxoom jotuloon ginnaawam nga dàq ko xañ ko salaire am tas njabootam tas këram fii am na si ñoom mi sëy yi tas am na fi ñi nga xam ne fi ñu doon luye dàq nañ leen fa ñi nga xam ne fayatuñ leen seen courant ñi nga xam ne fayatuñ seen seen ndox kon mu nek situation bo xamni en tant que ay liggéeykat kat xam xamni dañoon daan suñu doole mérité wuñu li te président de l'arbitre nga xam dafa joxe dogal ay nasaan teggi ko war na ci jog wax

ginnaaw bu ñu tëjee euh, usine euh, chinois yi xam ne ñoo nekk ca wetu ma mbokk yi loolu moo gën a fës yi bari teel bi réew mi di Sénégal ñu ànd ñu dooree xibaaru biir réew mi ak njiitu réew mi Macky Sall ma demoon ca Côte d'Ivoire moo yeneen i naataangoom ngir teewee cérémonie de prestation de serment wu njiitu réewum Côte d'Ivoire di Alassane Ouattara ma gagné woon élection wu 31 octobre bi ñu weesu Alassane Ouattara moom moomee nag am na lu toll si juróom-ñaari fukki at ak juróom-ñett falaat nañu ko ndax téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yaak ñeent moom la woteel. ña nekk ca dëkkuwaal ya nag di ay producteuru gerte am nañu njàkkare ndax usine chinois ya dakkal nañu seeni activité moo tax fédération des paysans du bassin arachidier xëy nañu tey dem ca l'usine yooyu basé wu ca Sàngil Dingiraay Kër Madiabel Waxunguna ngir xam la fa xew ca loolee lañu gis ni daal liggéey ba dafa taxaw El Hadji Malick Mbaye di représentant wu série moom daal kontaan na loolu ci jéego yi nga xam ni prix Macky Sall am na ko prix boobu nag ñoo ngi ko créé woon ci atum 2016 li ko tax a jóg di sargal ñi nga xam ni dañoo ràññeeku lool ci wàllum jàmm ak développement wu Afrique ren jii nag ñoo nga doon sargal Mama naa mi xam ni moo ko jël ci atum 2019 moom moomu sax moo nekkoon premier dame mu Kenya Maodo Malick Mbaye nag ma ngay rafetlu bu baax a gëdd bu prix bi am te mbégte la fii ci réewum Sénégal bàkk boobee di jëmmal lay teel bitim réew bés bu yàlla sàkk nag seen télévision régionale di xool ana lan moo gën a fës ca bitim réew euh, tey jii la ca gën a fës mooy ñaar fukki nit ak juróom-ñaar daal dina leen faat foofee ca Niger ña ko def nag wala ña def ñaawteef googee mooy waa Boko Haram nekk na loo xam ne nag doy na waar lool mbokk yi loolu it moo gën a fës yi bari teel bitim réew ñu ànd ci soxna Mariam Ly ñu tàmbali xibaaru ñi ñeel bitim Iran ak journaliste bi di Ruhollah la mi jàppoon daaw te de la révolution yi la ko ginnaaw ay at yu mu France rey nañ ko ni ci samedi bi li ko tuumaal daal violence yi mu ci manifestation anti yi ci 2017 ki ko xamle nag ji télévision nguur ma ca Afrique ca Niger ak attaque bi amoon foofu te waa Boko Haram amee cong bi lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom-ñaar faat nañ leen ci ci samedi bi jàpp dimanche bu sukkandikoo ci benn responsable local bu féetee foofule. ñu desandi Afrique ba tey ca Mauritanie jamono yi nag corona bi dafa bëri trop ci loolu nag amal nañu ab couvre-feu tàmbali ko ci dimanche bi ngir wàññi law bi mbas mi di law foofu foofule li lañ leen indiloon ci xibaaru bitim réew ñu leen di jox digg daje ba beneen yoon incha allah. Mariam Ly mbokk yi bàkk boobe nag di jëmmal la yitteel wàllub tàggat yaram bés bu yàlla sàkk seen télévision régionale ah, di ca def jéego ngir nit ñi xam ana moo gën a fës ca la yitteel wàllub tàggat yaram altine bu jot ñu ci ànd ak El Hadji Fallou jërëjëf Mariam Ly ni nga ko waxee dañ koy ubbee rek ak tournoi bi nga xam ne collectif club commune de Thiès nous ñoo koy teiji door nañu ko tey jii ñoom ci tournoi bi ñaaru lañ ko A bi Africa Promo Foot dina ci ànd ak Seneps Excellence ak ASC Walidane groupe B Amitié Football Club di ci ànd ak Thiès Football Club ak Union Sportive du Rail ci programme nag euh, tey jii lañ ko door euh, terrain Seneps ci waxtu bu njëkk bi Africa Promo Foot euh, songo ak Seneps Excellence ci ñaarelu waxtu bi amitié football club di songo ak Thiès football club ci programme nak ëllëg ak jàmm ci première heure bi Thiès football club dina euh, songo ak union sportive du rail ci ñaarelu waxtu bi CNEPS euh, excellence war ca songo ak walidan bu Thiès ñoom nak bu ñu defee seen championnat bi aller rek lay doon bu jeexee ñaar équipe yi nga xam ne ñoom ñoo raw ci seeni pool ñooy jouer final ba ñaari équipe yi jël deuxième di jouer match de euh, classement gannaaw bi ñu leen waxee waxee rek ne ci match amical Sonacos bu Diourbel moom dafa daan Mbour Petite Côte ñaar bal ci benn ci jonganteb xaritoo la championnat européen Ligue en ca France fukkeelu ayu bés ak ñeent Saint-Étienne ak Angers dañoo témboo kenn dugalu dara ci sa kaw morom Marseille dafa daan Monaco ñaar bal ci benn Montpellier dem fekki lance daan ko ñett bal ci ñaar Lille daan Bordeaux ñaar bal ci benn Lille moo nekk ci place bu njëkk ba Lyon ci dem fekki Paris Saint-Germain daan ko benn bal ci euh, dara euh, ba tax na Lyon moo nekk ci ñaareelu place bi Paris Saint-Germain nekk ci ñetteelu place bi Série A ca Italie fukkeelu ayubés ak benn Inter de Milan. dafa dem fekki Cagliari yi daan ko ñett bal ci benn nekk ci ñaareelu place bi AC Milan nekk ci place bu njëkk bi gannaaw bi nga xamee ne dafa témboo moom ak Parme ñaari but la ku nekk dugal ci sa camp morom Naples nag fële ci stade Diego Armando Maradona dafa daan sam Sampdoria bu na ñaar bal ci euh, benn ba tax na Naples moo nekk ci ñetteelu euh, place bi Juventus dem fekki Genoa daan ko ñett bal ci euh, benn Atlanta daan Fiorentina ñett bal ci dara fële ca Allemagne Bundesliga fukkeelu ayu bés ak euh, benn Leverkusen dafa duma duma yu métti Offenheim ñeent bal ci euh, benn nekk ci place bu njëkk ba Bayern de Munich nekk ci ñaareelu place bi gannaaw bi nga xamee ne dafa dem fekki Union Berlin te mboog moom benn ak benn Leipzig nekk ci ñetteelu place bi moom dafa daan Werder de Brême ñaar bal ci euh, dara Stuttgart nag dafa duma duma yu métti Dortmund Euh, juróomu bal ci benn Premier League fële ca Angleterre fukkeelu ayu bés ak ñaar Tottenham moo nekk ci place bu njëkk ba gannaaw bu mu tëmboo dem fekk Crystal Palace benn ak benn Liverpool nekk ci ñaareelu place bi moom it dafa tëmboo fële ci Fulham benn ak benn la ñu def Leicester nekk ci ñetteelu place bi gannaaw bi mu daanee Brighton ñett bal ci dara Everton dafa daan Chelsea benn bal ci dara Manchester United ak Manchester City dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa camp moroom tom dafa duma Sheffield ñett bal ci dara. ca Espagne Liga espagnole fukkeelu ayu bés ak ñett Real Sociedad moo nekk ci place bu njëkk ba dafa témboo ak Eibar benn ak benn. la ñu def Real Madrid daan Atlético ñaar bal ci dara nekk ci ñetteelu place bi Atlético moo nekk ci ñaareelu place bi USK dafa daan Alaves benn bal ci dara FC Barcelone daan Levante benn bal ci dara Valence ak Atlético Bilbao dañoo témboo ñaar ak ñaar. Séville FC dem fekki Getafe Dumoko ko benn bal ci dara ñu jéxalé ko ak huitième de finale yi nga xamné def nañu tirage bi tay ji muy Ligue des champions Lazio nak dina songo ak ki nga xamné mo yoré Bayern de Munich Atletico Madrid di songo ak Chelsea Borussia Mönchengladbach wara songo ak Manchester City match bu ñëpp di xaar nak Leipzig ak Liverpool lay Porto euh, war songo ak Juventus euh, Turin choc bi ñuy xaar tamit FC Barcelone lay doon ak Paris Saint-Germain Séville euh, di songo ak Dortmund Atlanta di songo ak Real Madrid loolu lañ leen tënkaloon ci xëtëb tàggat yaram Mariama Ly Fallou Ndaw ci xibaarub tàggat yaram mbokk yi foofee sax la xibaari buuree ci seen télévision régionale di Prestige mu nekkoon xibaar yi nag ci bésub altine gi yemoon ak fukki fan ak ñeent ci wérub décembre ci atum 2020 xibaarub marax yi delluwaat di gërëm ñi xam ne ñooñu doon seytaan ca bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV sant it ñuy seytaan wala ñu taamu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestiges.com ak page YouTube bu Prestige di delluwaat di wax askan bi ne man ngeen wéy di télécharger application Prestige TV ginnaaw bu ngeen demee Google Play su ko defee nag xibaar bi tukki nekkee bitim réew ak biir réew mi di Sénégal ngeen mën koo am ci anam nu mu war a mu waree ak nu gaawee ci seen téléphone portable ak seen ordinateur mbokk yi ëllëg xibaar yi teel bi réew mi di Sénégal ak bitim réew mbokk yi jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah.